it la daan teg daal dee lu nu mel autopsie bi tamit daal dee wane lu ñuy tuddee ab plaie traumatique frontale gile autopsie di wane tamit bopp bu toj xóot loolu daal dee laal sax yuuru kii di Baye Cheikh Diop waral mu daal dee amee hémorragie interne ak externe këyit gi nu xaatim juróom-ñetti fan ci weeru mars daal dee jàpp ni li ñu njort ni nag moo waral lu nu mel moo di ay coups et blessures yu soqikoo nag ci projectile bu ko daal dee dal certificat de genre de mort di wane ni kii di gonek mécanicien bi tuddee lésion cérébrale ba Cheikh Diop daal dee faatu nag alxamis ñeenti fan ci weeru mars ci jàmmaarloo yu tar ya amoon nag ci yëmbal noor lii di robam nag ñu ngi ko jàpp ci talaata ji ca armeer yu caaroy kaw nongaka yëmbal noor rajo Futur Media. ngeen jot